sëñ bi Djibril Samb ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ah, maa leen di fay. ngay diététicien nutritionniste ci hôpital d'enfants Albert Royer tey ñuy wax ci obésité tey fan lañ mën a qualifier ndax feebar la wala. bon ñu ngi leen di nuyu bu baax leen fay bu baax di wax ne bon comme comme li nga wax léegi obésité mooy mooy yaram bu ëpp yaram bu ëpp moom je pense que mën nañ ko considérer comme jàngoro parce que bu sa yaram ëppee rek xamal ne am nga. Euh, yaram boo xam ne méngoowul wulak sa at wala sa wala sa taille wala sa wala sa wala say say say habitude donc je pense que loolu aussi euh, mën nañ ko considérer comme feebar parce que dafa ëpp si loo xam ne ni da nga war a am lu lu normal mu dem ba ëpp donc euh, te loolu noonu mën na la jural yeneen loraange. te jii ci loraange yooyu sax ngay wax obésité lan moo koy waral justement. moo li koy waral bëri na vraiment mën na nekk loo jëlee si say waajur mais mën na lekk loo xam ne ni ngay dundee la su ma waxee dund moom lekkin bi mi ci Euh, ni ngay comporté wo est ce que yaa ngi yëngatu est ce que yaa est ce que nekkul da nga tayal est ce que nekkul yow nekk doo génn kër ga da ngay toog nekk si télé bi nekk si tablette yi et cetera changement de vie yooyu noonu est ce que du loolu moo koy waral bëri na ay facteurs yoo xam ne moom la ñuy wax les facteurs environnementaux je que yooyu yëpp mën na ko mën na ko waral aussi mais saa peut être aussi à à autre chose ah ça peut être bu nga jël benn benn traitement wala quoi que ce soit boo xam ne nii mën na déclencher plus de poids je que loolu lépp daal mën na waral euh, obésité. kon tey euh, lekk bi mën na bokk tamit ci facteurs yi. lekk bi kay kenn mënu ci génne parce que vraiment <laughs> lekk moom boo xamul ni ngay lekkee moom mën na la jural loraange ci même au delà de la prise de poids mooy poids na la jural loraange ci wàllu feebar yu bëri daal wax dëgg yàlla donc. Euh, c'est le moment nit ñi xoolaat lekk bi parce que xam ne daal wér gu yaram moom lekkin bi daf ci am solo. tey Sénégal ndax moo ngi gën di bëri. waaw pour di pour wax dëgg moom vraiment ñun moom ñi ngi sentir na ñi ngi gën a bëri mi ngi mi ngi a parce que on a on benn consultation bu ñu faral di def ci yoo xam ne exclu jour boobu loolu rek la mooy xale yi nga xam ne seen yaram dafa ëpp. je pense que yeneen collègues yi ne si yeneen service aussi ñàkkul ne dinañ def consultation pour adultes yi pour ñi seen poids dafa ëpp. donc je pense que loolu moom moom mi ngi commencé mi ngi commencé bëri trop trop wax dëgg rek ta ni mi ngi laal âge bu nekk euh, sexe yëpp bàyyiwul benn mais daal euh, mi ngi bëgg a bëri daal mi ngi bëgg a <laughs> léegi euh, ci bëri googu mu am euh, Sénégal nan ngeen ci taxawee ci wàllum prise en charge. prise en charge bi comme je l'ai dit tout à l'heure prise en charge multidisciplinaire la maanaam ñëpp ñoo ciy bokkandoo muy médecin bi muy diététicien bi muy kinésithérapeute bi muy ñëpp daal ñëpp ñoo xam ne dañuy jublu ci wàllu ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama boo xam ne pour poids am dafa ëpp ñoom ñëpp ñooy àndandoo pour mën ko xeex moo tax suñu consultation dañ koy defandoo ñun ñëpp ñi day génn fii dem ci kii donc on le fait ensemble. donc je pense que du du leen boo xam ni benn nit rek moo koy gérer euh, mais ku nekk am nga ci sa pàcc boo xam ni moom ngay def donc loolu la daal mais daal en tout cas au Sénégal y a une bonne prise en charge quand même am na prise charge bu bax fii Sénégal ça dépend nit ñi xam ko te iso nit ñi il faut ñu génn kër gi boo gisee sa sa doom poids bi mi ngi jéggi dayoo teelal génn kër gi nga hôpital je pense que loolu la souvent ñun dañuy jot ay malades yoo xam ne ni je pense que ay années si ginnaaw waroon nañ mën a ñëw danoon fekk cas bi bañ a poids bi gën a bañ a mais parce que obésité am na benn stade bu muy toll y a des stades quand même y xam ne comme lu ni naan obésité morbide am na fu muy toll foo xam ne ni vraiment complication yi day gën a yomb te day gën a bëri te boobu vraiment fekk na yow toog nga kër ga ba moroomam yi di ko si ñaawal parce que da si am wala nga jëm ba yow nga sentir nga ne kii daal vraiment pois bi jéggi na dayoo nga doog na ma dem yóbbu hôpital alors que yow boo commencé gis ne pois bi normalul rek war nga teel a parce que li ëpp importance mooy yu mel noonu ngay teel a yóbbu kër docteur ñu xool su fekkee ne pois buñ ko évalué quand on voit que poids bi baaxul bon ñu jéem la teel a jël en charge su dee baax nañu ne la baax nañu surveiller on pense loolu moo gën sànq nga wax ko euh, day laal ñëpp muy ndaw ñeeg euh, mag yeeg yooyu euh, tey nga wax ne ndaw yi souvent manque de vigilance maanaam ci seen i écoles yi seen i environnement bëri na ci yi nga xam ne mën naa am ñu jëlee ko fa. non école bi moom pour wax dëgg rek moom je pense que joué na ci benn rôle bu am importance parce que école bi tax ma wax loolu parce que école bi boo fa demee am na ñuy jaay ci côté école yi am na ñuy jaay ci biir école yi. Mm. donc je n'ai rien contre ñooñu. mais il faudra ñu gën a xoolaat suñ suñ suñ système de scolaire bi parce que tamit bu fekkee ne euh, bon nit ki dafa bëgg a ñëw doomam day jàng foofu ba pare alimentation bi demeewul noonu bon bu ñëwee à l'école day nekkee ko neexee parce que souvent bu année scolaire y des enfants yoo xam ne temps bi ñi journée bi li ñuy passé école sax duñ ko passé si kër donc kon mën nañ jàpp ne école mais même seen kër donc foofu li ñu fa war a lekk dafa war nekk loo xam ne dafay dafay dafay dafay set sell en même temps dafa war a adéquat par rapport ak euh, par xale yi mais bu fekkee ne on mange bon lañ fay lekk loo xam ne lu nekk lañ fa mën a jënd lu nekk la lu nekk moo fa disponible en même temps parents yi aussi duñ duñ bàyyi xel ne xale bi danga ko war a jox par exemple yóbbaal lu mu yóbbaal lu mel ni collation mu yóbbaale ko mais yow xaalis nga koy jox xale moom bu yoree xaalis bu demee li mu gën a bëgg moom mooy li nga xam ne ni moom mooy neex ba kanam mën na nekk aliment boo xam dafa sucré wala donc yooyu yëpp bon mën na nekk loo xam ne day yéegal day yéegal poids bi donc te du lu gën ci wér tamit euh, li jëm ci togg yeeg yooyu waaw mais daal pour wax la dëgg daal y a un réel travail bu ñu war a def ci école yi xoolaat école yi si yaa lii ñu dekkalaat cantine scolaire yi gën ko organiser mu am des des l'avis du l'avis des professionnels ñu xam lan lañ ko war a mën a jaay et parce que ñu ngi ciy wax ñu ngi obésité mais ñu ñuy en charge yeneen maladie sax yu si mel diabète de type 1 ne ñu ngi euh, xaw a sonal xale yi aussi mhm. on a ce problème vraiment école yi moom nañ travail à au niveau de des stru des structures scolaires mhm. maintenant affaire bi nekkul école kese ku wax école wax kër mhm. parce que bu ñu waxee kër ga aussi yaa yaa yaa wax mode de cuisson parce que souvent nit ñi habitude am kër ga tamit lekkin bi ñuy lekkee kër euh, ko demee mhm. donc c' est aussi bu ñu demee kër ga ñu jéem a changer habitude alimentaire xale yi di leen toggal togg yoo xam ne parce que lekk du question da ngay topp sa li gën a baax ci wér gu nit ki nekkul li gën a neex parfois nag nit ki moom li gën mooy lu saf suukar ba ëpp wala lu niin ba ëpp wala lu weex ba ëpp je pense que ñoom nit ñi topp lu question goût c'est vrai que lekk moom goût daf ci am solo mais mën na am goût par rapport nga utiliser quelque chose de naturel su fekkee ne lekk bu saf la nga utiliser des herbes naturelles bu dee sucre la on dose la le taux de bu fekkee ne yow ngi saf il faut mu niin ah pomme de terre def ko à la vapeur comme ni suñu maam yi toggee lépp lu togg dañ koy tay yow da ngay tay da ngay gis au four lay nekk wala mu nekk ñu jël ko frite ko donc nga xam ne day absorber de l'huile boo koy lekk sax ngay sentir huile bi euh, te huile boobu noonu ce sont que lu moo gën donc loolu day permettre que xale bi wala mag ki ku mënti doon mën na permettre yow sa poids di gën a yéeg. nga fi diabète bi euh, njeexital maanaam obésité yan maladie justement nga ci mën a am. Ah, bon comme li ma wax rek jabet bi moom <laughs> moom moo ngi taxaw à côté quand on est obèse moom diabète bi mi ngi fi problème mu cholestérol mi ngi fi problème mu tension mi ngi fi problème mu yax mi ngi fi problème parce que am na yenn obésité yoo xam ne bu ëppee ci kaw. maanaam yow sa yaram bu fekkee ci kaw la ëppee xam na ne mën nga am problème mu tànk mm-hmm. parce que yaram bi day reposé wu ci tànk yi bu fekkee ne ci ci ci suuf suuf bu dee ci kaw nga la ëppee mën nga am problème mu cœur parce que c'est c'est ça qu'on obésité androïde bu fekkee ne ci suuf la ëppee mën nga am problème mu tànk parce que yaram bi day posé wu ci suuf donc mën na am problème mu tànk mën na am problème mu tension problème cardiovasculaire et cetera yëpp daal mën na ci mën na ci mën na ci mën na ci laxasu donc wax na daal c'est c'est c'est ensemble boo xam ne ni vraiment dafa taxaw pour euh, porte de porte d'entrée la moi je pense que l'obésité mën nañ ko woowee benn porte d'entrée ci yenn feebar yi. D'accord euh, en charge bi ndax cherul rek. bon je pense que c'est cher bon la santé n'a pas de prix quand même pour la vérité mais sur le public moom c'est pas cher quand parce que foofu ticket lañ lay laaj benn yoon je pense que. après c' est une c' est une prise en charge boo xam ne nii c' est multidisciplinaire comme ni ma lay wax. Mm-hmm. après li ci des mooy bon nga war a gis spécialité yëpp dañ leen gis muy ki yor lekk bi diététicien bi médecin bi et bi bon s' il nécessité de voir le psychologue et tout lépp daal c' un ensemble bon ñun ñëpp ñooy liggéey ensemble ci côté boobu noonu pour mën a jàppale ñun suñ côté ci xale yi nga xam ne fii ñun ñoo jël en charge xale yu am yaram yu ëpp yi bu dee mag il faut mu nekk lu multidisciplinaire mais daal séeraay bi daal peut-être xaw ma feneen mais je pense que public bi moom séerul noonu daal. ñu lay jaajëfal bu baax a baax euh, sëñ bi Djibril Samb. maa ngi leen di remercier merci beaucoup.